jërëjëf mbokki auditeurs yu Baol Média FM 88 point 5 ñu ngi am mbégte dellu si waat di leen présenté seen émission bu mag bi di jotaay yërmande di am altine bu jot euh, talaata bu jot euh, simplement 19 heures euh, jàpp 20 heures fii ci fréquence ni ñu ko waxee 88 88 point 5 rajo Baol Média rajo bi nekk ci xal xàllu mag bi jëm ci dëkk mag ba ci Touba. ñu fa egg di fa nuyu ak ziar xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou di ko ñaanal suñu doom yàggal ko wéral ko. kàttanal ko ba li mu nam liggéey lislaam nam ko ci liggéey si sa toolu Cheikh Ahmadou Bamba suñu moom defal ko ci lu koy jot te ñaanu ko euh, naka loolu ko ñaanal njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu ko ñam euh, ñaanal tamit xalif euh, kilifa diine yi nga xam réew mi yëpp tamit suñu borom yàggal leen wéral leen ñoom tamit ba ci toolu lislaam suñu borom yàggal leen wéral ba ànd ko ñu nga xam ne noonu la ko noonu lañ ko bëggee di ko ñaanal tamit mboolem kilifa diine yi kilifa aada yi ñoom tamit suñu borom euh, sàmm leen aar leen yàgg leen fi ba li ñu nam liggéeyal askan wi suñu borom defal leen ci lu koy jot ñu ànd ko ñoom tamit di leen ci ñaanal baax waaye di rek suñu boroom borom dolli jàmm ci réew mi ni ñu koy waxee rek dëgg la am na fi waaye nag bu suñu borom dollee ñu jël ndax euh, jàmm ni ñu koy waxee rek ci la lépp xaj euh, ci biir loolu jàmm jooju ci la ñuy nuyoo ak ziar ak ñaanal mboolem auditeur ak auditrice téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ngi suivre la euh, sur plateforme digitale yi moo xam YouTube Instagram Twitter ñoom tamit di leen daal suñu borom euh, yàggal leen wéral leen ba ñoom tamit li ñu bëgg yëpp suñu borom defal leen ci lu koy jot ñu ànd ko waaye du ñu fàtte ñi nga xamante ne bii lu njëg njaaga ñooy njaag mooy ñi fi garal seen i bataaxal ñoom tamit euh, di ay ñoo xamante ne bi gannaaw yàlla yaakaaruñu fenn fudul ci Baol Média waaye nag kenn tamit ku dul ñi nga xamante ne bii ñoom nañu bokkal diine ji seen seen i euh, mbokki jullit waaye nag ci lu gën a yaatu seen i mbokki taalibe bi xam ñu ngi fii ci bool wala fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ci bitim réew. Euh, ni ko waxee rek euh, concept émission bi moom xam ngeen ko mooy di dalal ak taxawu ak di fi gaaral bataaxal yi nga xam ne bii am na ñu ko fi ñu ko fi andi ngir ñu jàppale leen ci te yàlla rek tax ndax. li nga yàlla moom mooy li nga xamante moo mooy ki moo teg euh, mbokki jullit yooyu wala jaami yàlla yooyu ay nattu ak i tiis ñu bëgg nag euh, yiw ak tuyaaba ak ngërëm goo xamante ni bi danañ ko yaatal ñëpp mën cee jàpp. looloo tax kon euh, ñoom itamit dañuy faral di am mention spéciale di leen ñaanal ba suñu borom ñoom itamit teggil leen tawat yi teggil leen tiis yi teggil leen jafe-jafe yi yi nga xamante ni bi yiw ak tuyaaba rek lañ ci séentu di ko ci bëgg. ba tax ñu andi ko fii di ko yaatal ci mbokki auditeurs yi nga xam ñu ngi ñuy suivre sur la 88 point 5 rajo Baol euh, tey ci technique bi suñu jëwriñ suñu xarit suñu mbokkum taal bi suñu suñu nag ndax sëñ Fallou la euh, fal sant bi rek koo xaw a yàq moom waaye moo ñu tey technique bi di responsable boo xamante bi lépp lu jëm ci wàllu technique ak ci matériel ci kër gi moom la ko kilifa gi dénk mu sëñ moo jëp caat ñu koy ñaanal moom tamit suñu borom yàggal ko wéral ko kattanal ko ba li mu nam ci liggéey bi suñu borom defal ko ci lu koy jot te mu ànd ko mboolem personnel bi nga xamante bi ñoom tamit ñu ngi ànd ak ñu liggéey bi euh, di safoo mboolem auditeurs yi ci émission yi ñu mën a doon ci biir euh, ci biir rajo euh, rajo Baol Média FM 88 point di fréquence bi. tey nag xam naa ni dafa tombé ak màggalu Daaru Salaam ñu fa yegg di fa ziare xalifa bi. di ko nuyu waaye nag di teg suñu suñu ak suñu jaar euh, ci loxol sëñ Modou Mamour moom sëñ Modou Rokhaya moom tamit euh, mu jotul ñu mboolem nuyu ak jaar yi nga xamante ne bii euh, ñoom ñoo ñooy nekk foofu ci kër maam Cheikh Anta xalifa Daaru Salaam kër Daaru Salaam nuyu beeg jaar bi yëpp ñu teg ko ci loxom Mbacke Balla mu ñëw ñu ko mbooleem kilifa ak sang yi nga xamante ñoo nekk foofu ci Daaru Salaam. mu mel ni rek tey xam naa ni suñu euh, ñi daan wéttali ku mel ni euh, Baye Abdou tey am na gàllankoor gu tax xam naa ni tey ñëwul tax na ba dinañu xas yéen dañuy fas rek niñ ko daan defee saa su di ànd ak auditeurs yi euh, wala téléspectateurs yi sur la plateforme sur plateforme digitale yi niñ ko waxee waaye ñi nga xam ne ñu ngi suivre sur la 88 point 5 mën a woote ci 88 628 19 05 niñ ko defee saa su ne wala 08 euh, mooy bu mu ku ci jaar di nga ànd ak ñun jotaay bi euh, di fësal sa yéene sa xalaat euh, ba sa sa la nag ndax niñ ko waxee woon bataaxal yi ba léegi ñu ngi fi saa su ne te yéen rek lañ fi xaar ci seen ndimbal seen taxaw ak seen jàppale ak seen xol bu yaatu ak seen bëgg lu baax yow tuyaaba ba tax na loolu saa ne ñu ngi koy leen si tàllal loxo di leen si yaakaar gannaaw yàlla di ci seen tudaal loo xamante ni bi lu kawe njort la te am nañ yaakaar ni suñ borom dana ñu si doolee dimbali bu baax a baax mu mel ni euh, kon waxtu bi mu ngi jëm ci euh, xot ndax tey comme commercial ku ne xam ne ni mbiru rajo moom dafa ànd commercial ndax moom moo koy doxal tey bu ngeen ñu mën a ci fu ngeen fi mën a tell ci toll ci àdduna bi euh, commercial bokk na ci li nga xamante ne moo koy doxal te saa su ne duñu noppi di talal suñu loxo ak woo ñi nga xamante ni bi ñoom la ñu seqal diwaan bi fu mu fi mën a doon moo xam ci biir Touba wala Mbacké ak li ko wër euh, ci ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu am fii ay ay barabu liggéeyukaay euh, ñoom tamit saa su ne ñu ngi xam ne bu ñu mënee di ñu dégg saa su ne wala di euh, di ñu suivre ci fépp foo xamante ni bii ci xarala yi yees yi la commercial moom moo ñu ko xaw a jàppale ak ak pexe yeeg stratégie yi nga xamante ne bii direction général ak jë kilifa kër gi mu ngi koy def ci ba fexe dàpp mbégum auditeurs yi. ak téléspectateurs yi ñu ñuy suivre ku ne xam na ni euh, courant bi fi ne nii moom gannaaw suñu borom moo tax ba ngeen ñuy mën a suivre ak di ñu mën a dégg fu ngeen fi mën a ne ah, ak yeneen yi nga xam ne bi moo nekk ci ci biiru liggéeyukaay yeeg jumtukaay yeeg xarala yi ba tax ngeen mën ni ne ko loolu euh, commercial def ci am loolu am solo yàgg nañ ko fee wax di ko waxaat di ko euh, fàttali ni ñu ngi sàkku daal mbooleem ñi nga xamante ni bi yàlla dafa leen mën a gan ci wàll wu mën a doon moo xam ci euh, wàllu commerce la wàllu entreprise yi samp seen euh, seen i reen wala seen i banqaas fii ci biir tubaa ak li ko wër ñu mën a di dooleel émission bi di ko bàyyi xel ndax loolu dana dimbali euh, kër gi dana ñu dimbali émission bi waaye nag surtout ñi nga xamante ni bi ñoo fi andi bataaxal ndax képp koo xamante ni bi jaare la nga fi sa bataaxal jaare la nga fi sa sa communiqué moo xam avant première wala lépp lu mu mën doon rek lante yaa ngi si jublu bëgg ci ñu ñu yaatal la ko boo fi ñëwee eh, jàppandal dana ci am goo xamante ni bii doo ko mën a gis feneen wala doo ko am feneen te loolu dompat eh, li ñuy wax ni ci sot rek la bokk loolu tamit ñu ngi koy ñaan di ko sàkku di ko fàttali ñëpp rek ñoo xamante ni bii eh, ñu ngi ñuy béggee te ñoom suñu raison d'être mooy di leen bàyyi xel di fexe ba saa ne di dab seen mbal neex ci ay programme ak i perspective ak lépp loo xamante rek jàppale ni buñ ko defee dinañ mën a jot seen i seen bànneex seen mbégte ba euh, ñu mën a euh, gis seen bopp ci rajo bi nga xamante ni bii ñoo ko bokk ñu toogal leen fii ñu doon seen mu doon seen lépp. Euh, di am mbégte bu baax yi tamit ni ko waxee rek di nuyu ak ziar rek ñi nga xamante ni bii ñoo nekk di jàpp ci liggéey bi moo xam ci lu fës ak ci lu nëbb ndax itam am na ci wax dëgg yàlla ñoo xamante ni bii. ñu ngi def te yàlla tax moo xam ci lu bëgg ñu ñu koy fësal ak ñu koy ñu koy nëbbi tamit yooyu ñëpp ñu ngi leen ci euh, ñu ngi leen ci euh, jàppale ñu ngi leen ci ñaanal bu baax a baax ñu daje ci ak yiw ak tuyaaba ak ngërëm ak suñu borom ndax tamit xam nañu ni li ñuy def euh, lim leen mën a jural ci yiw ak tuyaaba ak lu baax kon ñooñu dañ leen ci sant bu baax a baax di wax ni saa su ne jamono ji nga xamante ni bii euh, nit a ngi wut euh, alal te loolu defe naa ni réseaux sociaux yi am na benn benn euh, lii di jaar ci ci réseaux sociaux yi xam ma nuñ koy tuddee am man yàlla dafa dogal ne comme bokkuma ci ñi jànge woon ba tax na lañ koy tuddee du ma dem loolu rek expliquer ko ba ñu mën a xam li ma li ma bëgg ci li ma bëgg a xam mooy mais ay wàll xeelu message la boo xam ne dañ koy faral di jàllale lu ci bari ci réseaux sociaux yi euh, mu yaatu te loolu ñi koy def ñu ngi ciy jublu di fàttali nit ñi euh, lu mel ni li ñuy def nii ci lu gën a yaatu ndax euh, maa ngi ciy gis ñu bind ci ne jamono ji nga xamante ni bi nit ki mu ngi wut di sàkku alal ca wet ga am na koo xamante ni bi mu ngi sàkku ak di wut ak wér kon mu mel ni boo tegee fii alal gi teg fi wér gi ki toll ci yenn situation li koy gënal mooy ak wér jamono bi nga xamante ni bii ki wér moom eh, itteem yëpp ak eh, xalaatam mooy wut alal kon nga xam ni suñu borom moom dafa dafa séddale mbir yi noo xamante ni bii kenn xamul nu mu nu mu tëddee te lépp di yërmande ak bëgg nga xamante ni bi bëgg na ko doomu aadama te li mu sàkk yëpp doomu aadama rek a tax moo tax ñuy fàttali saa su ne li nga xamante ne bi euh, moom la digle jaarale ko ci yonent ci alxuraan nga xamante bi euh, jàpp naa ne euh, ci biir alxuraan boobu bari na ci ay digle ak i fàttali yoo xamante ne bi jëm na ci ndimbalante ak jàppalante am na ci Euh, ñu gis ni yonent salaam lu mu lu mu pratiqué la moom yemu rek ci jàng alxuraan ndax alxuraan ay wax la waaye nag jëf ji mooy ki nga xam ne yonent salaam mooy moo ko moo koy pratiqué te loolu jàngale na ci saaba yi nampe ci loo xamante ni bii jëf nañ ko ba ba àddina tukki dina am xise yoo xamante ni bii ñu ngi koy wax ci wàllu ndimbalante ak jàppalante ci wàllu social. loolu suñu yaakaar tey ëllëg suñu jàmbaar ji Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul nga xamante ni bii doon na yonent salaam ci léppam. def na ci lu kenn du du du dul mënati ndax baytam bu siiw boobu mu wax ni suñu borom may na ko lu mu dootul may mbindéef ba ba ba suñu borom di bul bëf def bul bëfte bi maanaam euh, jàngkat yi dañ koy gën a waxee sax sa illa yaxaal allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mun ki ni wan may na ko ko ci ci ci njabootam ndax am na ci jëmm yoo xam ne ba fii ñu toog ni tey ji ku xool sëñ Muntaxa xam ni benn la ci ci li yàlla bind ci kaw suuf moom sëñ Muntaxa moom te ñi ko jiitu ay ay ay ay wajuram ba ci magam ay magam yi ku gis ni nga xamante ni bi noonu la xam ne euh, sëñ Muntaxa kenn la boo tuddee sëñ Modou Moustapha kenn la ci njaboot sëñ ñoo ñu nga xamante ni bi suñu suñu yaakaar tey Cheikh Bamba wax na ni Euh, njabootam googu ak njabootu yéen saa salaam kenn mënu leen a kenn mënu leen différencier kenn mënu leen a ràññee doon gi nga xam ne yéen saa salaam Cheikh doon na ko ci lépp moo tax ba tey ñu toog fii ñu toog di wax ni ñuy ñuy ñuy àdd ngeen di teewlu xam ngeen ni njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu li ñuy def ci mbirum jàppalanteeg ndimbalante néew ma amul fenn waaye néewaa na foo ko mën a gis ci àddina te seetlu gu seetu ñu ci. Euh, lu keneen man wala lu mu lu mu lu mu mënul lu ñàkk dañuy def yàlla tax di ci séntu nag euh, pay payug suñu borom di ci digal ñëpp nag ndax saa su ne ñoo ñoo koy ñoo koy soññee jiitu ci euh, ba bëgg tamit ñëpp mën cee jàpp kon day baax ñuy fàttalante loolu yi nga xamante ni bii mooy dimbalante jëriñante defante yiw ak tuyaaba ndax ni ma ko waxee léegi rek jamono bi nit ki wut wér bii wut wér-gu-yaram ci ca wàll ga am na koo xamante ni bii moom mu ngay wut euh, ma ngay wut alal waaye nag wér-gu-yaram yi tamit ki nga xamante bii mu ngi koy ci jamono boobu am na koo xam ne ca wetam mu ngi wut ak dund lu lekk wér na waaye amul lu lekk loolu tamit ku ne xam na ni euh, wala ku ne gis na nii loolu lu am la ba tax na lu ñuy fàttalante la waaw alal gi ci la wér gi ci la waaye ku nit ki dund tamit ci la te jamono bi ñuy wax ni tamit ba tey am na koo xamante ne bii xëy na euh, am na wér euh, dund jafe ko ba ba doon problème am mu di ko wër euh, ca wet gi tamit am na keneen koo xamante ni xëy na dund googu manqué na ko muy wàllu dëkkuwaay ba tax na moom it itam yëpp mooy fu mu suturloo te muy lu am solo loo xamante ni bis bu set dañ koy gis tey jii. foofu waaye mën na ne boo dawalee sa bët tuuti ak sa xel ak sa xalaat di nga gis ne que ni euh, loolu lu lu am la lu nekk la ba tax na euh, dañ ci war a di fàttalante saa su ne ba tey yéen a ngi suivre si seen émission kat euh, Baol Média FM rajo bi nga xamante ne bii mooy rajo bi bàyyi xel ndaw ñi ak jigéen ñi nekk fii ci Tableau Thiamé 88 point 5 ci kàddu gi seen mbokkum taal bi moo amee ñu ngi di leen présenté émission bi nga xamante bii mooy am talaata ju jot. 19 heures jàpp 20 heures euh, émission mag boobu di jotaay yërmande euh, émission bi nga xam ne bii émission la bu bu bu jëm ci jàppalante euh, waaye tamit yërëmante ak dimbalante ci fànn yu bëree bëri ndax social dafa jàppalante social dafa yaatu yaatu na loolu ba tax na jamono ji nga xamante ni ba tey moom laa doon wax léegi ni am na ko xam ne jëkkuwaay mooy problème jamono boobu nit a ngi dund nit a ngi gane àddina fi saa si waaye fii jamono bi nit kii ganee àddina fi saa si am na ku ñuy ku ñuy waajal ngir mu dem wuyu borom nga xam ni kon àddina lépp lépp lépp euh, ay njàngale la ak bàyyi xel wante ndax suñu borom bu fekkee ne na bi borom xam yi xam-xam yi lay waxal kon jàpp naa ni tey waruñu woon am jafe-jafe bu toll ni euh, di ñàkk tegtaloo ci ci ci alxuraan di ñàkk tegtaloo ci hadis te boroom xam-xam yi nga xamante ni bii ñoo ñoo ñoo peeg xam-xamu àddina yi defar ci lu mel ni micro bi ak xarale yi maanaam rajo bi ngeen di déglu noonu euh, technologie yi lépp loo ngeen gis ci àddina bi rek gannaaw ba suñu boroom. bindee doomu aadama dugal ko ci biiram xam-xam yooyu ñu di ko jëriñoo doomu adama rek a tax leneen taxul léegi nag bu fekkee ni nit ñi dañu am seen xam-xam am xel ak xalaat di pekk àddina di ci def lu ne ndax tey ji ku xool euh, fi àddina toll ak li ñuy tuddee intelligence artificielle yi altine bi loo xalaatul lu ne nit ñaa ngi koy mën a def ak di ko ñu war a mën a xam ni kon tey war nañoo toll ci euh, jamono joo xamante ni bii duñ ne néew ki ndimbal du am waaye façon bi ko ñi nga xamante ni mën nañ leen tuddee ni gëmuñu yonent saa sax wala gëmuñu lislaam nañu koy defee ba ci seen i mala ma ma euh, ñi nga xamante ni bii ay ay ay rab lañu. wala ci gàncax gi wala ci loo xamante ni ci seen dëkkuwaay environnement ñoom lañ koy defe waaye ngalal ki nga xamante ni bi nag dafa am yonent bi salaam donte sax nag yonent bi ñëpp la ko suñu borom euh, jagleel doomu aadama waaye am na ñoo xam xëy na nanguwuluñ ko wala gëmuñu ko ñu ko ni ko ñooñ lislaam gëme ak nangule waaw léegi nag ñooñu bu fekkee ni ñee nga xamante ni bii gëmuñu yonent bi salaam xamuñu ko jéemuñu ci njàngaleem lenn ñun ñu am loolu ba noppi ñoom ñu war ñoo gën a mën a xam gën ñoo mën a jëf lu baax ne kon loolu dafay laaj kon ñu taxaw seetlu tuuti ni lan moo waral lu mel noonu loolu euh, dafay baax euh, ñu di ci jàppalante te damay faral di wax ni xeebuñu gël na yàlla na nga ci wàllu ñaan ci émission bi waaye tamit xeebuñu génn euh, dërëm wala koppar wala lenn loo xam ni mu ngi fi jëm si war a jàll jëm ci ñi nga xam ne bii ñoo fi ñoo fi andi bataaxal yi ñu ci dara yéemuñu ci lenn tamit ndax lu waaye mën na jëf tamit di ko wane ki nga koy jëf muy doomu aadama bi moo ëpp solo loolu. ko loolu dafay mat di bàyyi xel saasu ne euh, ñu ji di ci euh, soññante di ci fàttalante ndax ni ma koy waxee saa su ne ñun. Euh, yàlla def ñoo nattu ñu toog fii di ci kanamu micro bi di di jottali ay kaddu ngeen koy teewlu teewlu gi ngeen koy teewlu gën ñu koo xam euh, gën cee géeju noo xamante ni bi ñun sax suñu suñu xalaat ak suñu jotu yeggu fa kon loolu su dee am war nañu ñun dañuy sàkku wala di tàllal loxo mbooleem ñi nga xamante ni bii ñu ngi safoo euh, rajo Baol Média fu ñu fi mën a ne ci biir réew mi ak bitim réew ngir ñu mën ñu dimbali ba ñu mën a dimbalee ndax dama koy wax ni émission moom am na rek numéro boo xamante ni bii ni ma ko waxee rek muy 88 628 19 05 wala 88 628 mooy numéro yi nga xamante ni bii ku ci woote di nga ànd ak ñun waaye tamit saa boo xamante yàlla dogal na émission bi jeex na tamit rajo bi moom standard baa ngi fi rajo numéro standard bi mu ngi fi euh, saa su ne. Euh, nit mën naa mën a am euh, possibilité mën a dimbali nit ñi wala mën a indi ndimbalam yónni ndimbalam ci biir ci ci rajo bi mu jëm ci ñi nga xam ñoo ko soxla kon loolu ni ma koy faral di waxee saa su ne rek lay moom du mën a am bàq bi tooy na ñu ngi seentu nawet nawet ak saa euh, ndax luñu lu ñu mën a gis la baatin bi nag moom mooy lu mel ni noor ak nawet émission bi am te saa ne nit war a mën a jëf ak wax loo xamante ne bi dana ko mën a dimbali ci am yiwub tuyaaba dajale fi ndax fañ jëm saa su ne lañ koy fàttali gannaaw bokk yóbbaale eh, nanguwu ko dem ba noppi nii nañ ma yët li ma andil nanguwu ko li ma nangu rek mooy fret am yóbbu leen ma lii su ma dikkee fekk fa te loolu eh, kenn kenn kenn ci jamono ji warul mën a am layu ni mënuma def lu yiw wala def tuyaaba donte mbuusum ndox mu sedd la sax eh, bu ñu xeeb kenn yàlla bu ñuy sax bien te loolu yëpp defa di lu lu am solo ci kii bi ci euh, euh, fàttalante gi ak soñante gi nga xamante ni bi euh, rajo Baol Média à travers la direction générale ci kilifteefu déglu leen Modou ñu koy ñaanal suñu moom yàgg fi téwér mu di ñu bëggal yiw ak tuyaaba ak ngërëm ndax xam na li ko fi andi bàyyi ko fi bëggal ñëpp yiw ak tuyaaba tax na ba rek moom moom mu ah, créé émission bi nga xamante ni mooy jotaay yéen yërmande di am talaata ju diggante 19 vingt 20 heures euh, su ko defee kenn ku ne euh, mën a am loo xamante ni bi gannaaw fa ñuy jëm lu doy ak lu baax lu fa lu lu fa dañ ko fay aajoo saa su ne rek mën cee njëkkante yi ak tuyaaba bu baax baax kon mel na ni xam naa numéro yi moom wala simili yi li ci des tax ko bari lool te comme tey yàlla dafa dogal euh, sëñ Abdou am na ci itti yoo xam nekk na fi ñu fas yéene wéttalante ak waxtaan ak mbokki auditeurs yi ni ñu koy defee saasu su ne euh, ci tomb yi nga xam ne bii jot nañu ko waxtaan. Euh, ci la 88.5 rajo Baol Média FM ci seen émission mag bi nga xam ne mooy am talaata ci jot diggante 19h euh, 20h fii ci fréquence su 88 li ñu ko waxee point 5 rajo Baol Média rajo bi nekk ci xàll mag bi jëm ca dëkk mag ba ca Touba ni koy waxee rek di ziar ak a magal suñu yaakaar te ëllëg si Abdoul Karim Mbacké moom suñu fallu. ñu di ko ñaanal moom tam suñu borom yàggal ko wéral ko ba li mu namm liggéeyal ay ndawi réewam ci ñu am digg digg ay jikko yu rafet muy makarima ala ah, suñu borom defal ko ci lu kay jotam di ko ñaanal nag njabootam gépp nag waaw bu ñu limee nañu yum waaye bu njabootam gépp rek eh, ñëpp ci lañu tàmbalee ci ñi ñoom la ko Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul eh, ci wàllu deret waaye tam ci wàllu doomu dënn ñoom tamit ñuy Baay Faal yeeg eh, taalibe yeeg rek ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yàggal leen wéral leen tamit di séntu ci émission bu mag bi nga xamante ne bi mooy émission jotaay yërmande ndax ku ne xam na gis na euh, taxawaayam ci wàllu social ndax bu yàggul rek acte bu foor bi nga xamante ne bii defoon na ko fii ñëpp di ko fàttaliku ba tey ba ku gis euh, ku suñu borom jàpp ci ay tànk sa xel dana dana demaat ci ci Cheikh Abdou Karim Mbacké jëf jooju nga xamante jëfoon na ko euh, jëm ci appel bu yaatu bu bu matale bi nga xamante ne Euh, jamono ci handicapé yi ba wutal leen ay pousse-pousse yu am solo ba léegi tamit ñun ñu ngi ci lancé boobu rek ñu ngi la ñuy la ñuy dox di ko sàkku tamit ndax am na ci ba tey ñoo xamante ne bii euh, ay mbokki taalibe lañu ñuy ba tey ci njaboot gi lañu bokk soxla lu mel noonu tey jii euh, loolu lu baax la loo xamante ni bii du doy actu yooyu fekk ñu ngi koy def mooy di ko fàttali nit ñi mooy saa su ne dafa war di am warul sëñ bi bi mu ko defee rek lañ waroon kenn ku ne. saa su ne di loolu warutoon taxaw warutoon taxaw ba mu ko lancé ba tey jii la war a gën a mën a am ak ndimbal li nga xamante ne bii mu ngi koy jëf jëmale ci ñi nga xamante ne bii ay néew ji doole lañu kon loolu li ñuy wax ci sëñ bi moom yaakaar naa ni gënuma ko xam kenn ndax bari na ay soppe bari na ay taalibe bari na ay xarit waxante xamante ne bii gis nañu xam nañu liggéeyam boobu nga xamante ne mu ngi koy liggéey euh, ci jaami yàlla yi te tamit euh, loolu rek mooy li nga moo ko fi andi bàyyi ko fi ba euh, yéene ñëpp yóbbu Tivaouane kon mel na ni xam naa ci technique bi suñu suñu suñu jarbaat bi <laughs> xam naa yaa ngi ci kafe gi de léegi euh, am naa euh, suñu élément boobu noonu fàttaliku yoonu géej yaa ngi ko yaa ngi xam naa ni maîtriser nga ko de xanaa. léegi may da nga may da nga may kiiwal da nga fay wala wala nga yëgal ma xala xalame gi tuuti rek su ko defee xalam gi tuuti rek nga ñuy tegal rek su ko defee après ñu bu ñu dellu see le temps ma naan kafe mën a mën a mën a dellu si loolu noonu. dénkaan bi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dénkoon njaboot gi bi muy dem ci géej gi ci tënk dana leen képp ku ñëw ci yéen di leen diis soxla te ngeen mën ca dara bu leen ko neenal alal ji leen seen borom wërsëgale na ngeen koy def ci seenu njaboot ak ci way néew doole na ngeen di bëri lu ngeen di sàkk sarax ak lu ngeen di ñaan saa bu seen mbokkum jullit ñëwee ci yéen di leen diis soxla lépp lu ngeen mën ca dimbali ko na ngeen ko def na ngeen xam ne ki gën ci nit ñi mooy kiy dimbali jullit ñi te di leen jëriñ Baol Médias 88.5 kaddu askan wi. jërëjëf soxna sama jarbaat Marema ànd ak Kumbista soxna Kumbista ah noonu la waaw moom tamit moom moo koy jàppale ci euh, technique bi xam naa ñu ngi ci wàllu ñoom dañoo nekk ci formation bi ah du du formation yéen a ngi tàgg tàggatu fi mu doon nii loolu baax na moom doole leen defal jàmm baax moo ñu moo ñu mooy assister Marema ci technique bi ñu ñaanal baax suñu borom sàmm leen ànd leen yàggal leen fi. mooy suñu jarbaat yu baax xamante ni bi euh, lii rek mooy euh, gis-gisu bu sori bu sëñ Modou Diop ndax xale yi ku leen fekk booy xool seen at amul tolluwuñ ci ñaar fukki at ak juróom waruñu am vingt cinq ans te bu bu ñu amee quinze ans seize ans ci la am te ñu ngi nii mu leen di tàggat ci xeetu xarala loo xamante ni bi euh, lu am solo la. ay xale yu ndaw la ñuy wax ne boo leen fekkee fii ñu kii danga nga naan ñii waruñu kii waaye itam lii mooy gis-gis bu sore bi nga xam ne moom la am ci ndawi réewam moom moom laa wax léegi ci sëñ mu Abdou Karim waaye nag boobu rek moom la sëñ Modou Diop Thiat am euh, ci ci ndaw yi ba di leen tàggat ci góor ak jigéen mag ak ndaw ba tax na ñu mën a ñoom tamit ñoo ñu technique bi Coumbista ak euh, soxna Marème moom muy ay xale yu am ñu yu baax a baax. 88 la 628 19 05 wala 88 628 81 mooy buum ñaxte ku ci jaar di nga ànd ak ñun euh, jotaay bi euh, ci seen émission mag bi di am talaata ju jot 19 euh, fii ci fréquence wu 88 point 5 rajo Baol Média teg di dégluwaat rek sàkku ndimbal jëm ci ñi nga xamante ne bi ni ma ko waxee rek yaakaaruñu kenn gannaaw yàlla yéen ci bataaxal yi ñu fi indi rajo bi tamit mu loolu rajo boo xamante ni bii bu ñu bàyyi xel la te ñu gis ci seen bopp ba tax na ñuy fiy jaarale seeni i bataaxal loolu su fekkee nii am na euh, yaakaar warul fee tase euh, te tamit euh, wóolute gu boo xamante ni bii am na fu mu tàmbalee. waaye amul fu mu yem ci rajo bi ak ci ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy jëf te yàlla tax jëmane ci ñi nga xamante ni bi suñu borom daf leen kii ndax tamit euh, yàlla moom able mayewul dara dafa able rek yéen auditeurs yi ñëpp ñuy déglu ñoo ñu gën a xam ne suñu borom ablewul yàgg nañ see gis koo xamante ni bi euh, ñàkkul dara xëy suba suñu borom ci njàngaleem am lu mu wane ci moom ba yaratul ba tollu ci ñu war a ko mën a dimbali gisoon nañu ko wér tamit xëy suba wéradi gisoon nañu ku daan dox xëy suba mënatu ko ku daan wax te mënatu ko bari na ba exemple yi moom du jeex te luñ ci mën a wax xam ngeen ci lu ko lu ko raw walla gis ngeen ci lu ko raw kon bu ñu toogee fii euh, toogal fii ñi nga xamante ni bii euh, ñoo ñoo bëggal seeni moroom yi jullit yiw ak tuyaaba ay la yéwén war naa mën a yomb war naa mën a yomb ci di def yiw ak yiw ak tuyaaba ak di ko wax waaye nag jamono ji dafa toll ni euh, wax ji moom lu mu lu mu bari bari kon jëf ji moom moom moo ko war a moo ko war a ëpp ndax lii nga xamante ne bii mooy ay bataaxal yi fi bi wax ji du ko du ko sotal lii lenn rek la ci man mooy fàttali euh, ak jottali waaye la koy sottul dëgg jëf lay doon loolu concret bu nu xoolee maam Sarafa rek làmp euh, ñu xam ni mbir mi du ay wax waaye jëf la ñu di ci woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp koo xamante ne bii xam nga. koo xamante ni tey ji jii dama ko daan waxee soo soo ko jottalee kàddu yi mu jëf ci wax ci mu jëf ci lu lu loo xamante ni tey jii di nga ci mën a am yow tuyaaba bu ko xeeb koo xamante ni tamit mu ngi dégg xam ni lii liggéey yàlla la mu mu jëf ci tamit ba tey fan lay xam ñu ne duñu mës a découragé duñu mës a bàyyi duñu mës a yokkat ci di woo bonne volonté yi. moo xam kilifa diine yi kilifa aada yi euh, ñëpp rek boroom xam-xam yeeg borom alal yeeg ci ñu ñu ñu jàppalante ba di def yiw ak tuyaaba amaana bés dina ñëw lu kawe suñu jot dina am ci émission bi gëm naa ko xaw ma nag ku muy doon ndax lii continuité la maanaam rajo bi lu ñëpp bokk la ni ko ni ko kilifa ki di waxee tey tàmbali nañ ko waaye amaana suñu borom mën na ko yeggale ci ci ci ci yeneen jëm wala ci beneen jëm ba mu egg foo xamante ni bi dañu mujj di fàttalikul ci ba ñu tolloo ci jamono bi di di di bëgg ñaar fukk juróom te ñu loolu lu mën a nekk la suñ borom mën naa omat nit wala fexe ba nit dégg suñu kàddu mu ne lii la doon xaar ndax mën cee jëf-jëf joo xamante ni bi tey da dana kala suñ njort wutal émission bi banque loo xamante ni bi structure yëpp yi mu laaj ba mën di dimbale ci transparence ci ci ci ci lépp loo xamante ni bi képp ku jëfati ku bëgg a jëfati tamit di nga am référence wala royutukaay bu leer ci ci ci ci émission bi dinga ci bàyyi xel ko loolu duñ ci duñ ci mës décourage ndax bu nu xoolee yeneen ci nga ne bi suñ borom yónni woon na leen am na ci ñoo xamante ne bii yónni na leen wax leen am na xamante ne bii yónni na leen waxloowu leen naka noonu rek lañ jàppee émission bi kon am na ci ñoo xam ne tamit yónnee nañu yónnee nañu ñu woote ay ati at te lim bu néew ñoo leen wuyu si te yooyu yëpp di ay mbir yoo xamante ni bi dafay jar di fàttalante kon euh, loolu rek moo doon euh, tey seen émission jotaayu yërmande euh, amoon tey mu tombeek bésu màggalu Daaru Salaam ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñi nga xamante ne bi tey ñoo nga ca màggal ga euh, di leen ñaanal tey sàkku tey dem naan euh, ci ci ci lépp ci ñëpp ci fépp rek rawatina suñu émission bi nga xamante ne bi euh, ñi tax ñu toog fi mooy ñi nga xamante ni am nañu jafe-jafe te leer na ma ne fii ñuy àddoo ngeen di teewlu am na ñu fa ne soxla loolu ndimbal ñu bàyyi leen a xel bu baax a baax ci wàllu liggéey bi kon na jot na kon ñu yëkkati jotaay bi di ñaanal ñëpp di sàkku ñëpp naan tamit di loo xel émission bi ñi nga xam xamante ni bi ñoom la suñu borom mën a gan société commerçant yi ñëpp rek ñu dolli ñoo dimbali di bàyyi xel ci émission bi ci wàllu sponsor rek euh, ci wàllu publicité kon mu doon seen émission mu nekkoon seen émission bi nga xam ne bii moom lañ doon amal talaata bu jot 19 heures 20 heures si kaddu gi seen mbokkum taalibe seen xarit seen soppe Mouhamed Niang da leen ko présenté euh, ci kaddu gi technique bi tamit. Euh, mel na ne aminte nekkoon na fi ak euh, kumbis kumbista waaw <laughs> kumbista yooyu leen ñu euh, technique bi ci supervision wu jë jërina euh, sëñ Fallou moom itam mi nga xam mooy responsable bi di nuyu ñëpp di bëgg ñëpp di leen wax nag ngeen wéy di continuer di suivre programme rajo Baol Média FM ak màggalu Darou Salam gi suñu élèves suñu reporter yi bari ñu ngi ci terrain bi xam naa xëy ni ñàkkul ci soog léegi dégg ngeen euh, ñi nga xam ne jëm jot jot leen wax euh, xamal leen li nga xam ne moo fa xew ci terrain bi fii ba euh, ñu ñuy ñaan rek wala fajar ngeen bàyyi xel saa su leen di mën di dëktal ak di leen mooy xew ci ci màggalu Daaru Salaam la di am mbégte bu baax doo leen présenter émission bi di leen wax ni jërë ngeen jëf te ñu. di leen nuyu di leen tàggu di leen wax ni bi beneen incha allah ci ngeen way di suivre seen programme rajo Baol Média FM sur la 88.5 ngeen jëf ba beneen yoon.